caaxaan waru caa jëm foo waru caa jëm su fekkee teraanga la nañ ko terale ñi ñëw ñépp bañ caa wucc xaaj ji ak séen waaye loolu lu ci soof la nangam royal waaye bi ma jëkk a wax ne am na tal bu ko sëriñ bi fekke woon nga xam ne dangay dem jox ko loxo ci màggal gi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 jëru dàkk bis bi nga xam ne bis bu daw yaram la bis bu daw yaram